Serigne Mor Mbaye ñu ngi lay nuyu. ma ngi lay di fay. Mm. no gisee violence bi am stade Demba job mais du du lu fi euh, gëj du lu fi yag la lu fi yag la man nañu wax ni ñaar fukki at ak juroom man day maa fi fan fanweeri di liggéey ci réew mi fan at yépp amul benn at boo xam ni gisuñu lu mel noonu lu mel ni violence donc du lu ma jaaxal. ndax euh, réew dafa euh, ay nit ñoo séq am réew soo fekkee ni réew dara dafa jaarul yoon dara jaarul yoon violence bi njëkk mooy violence bi xam ni ñi ñu dénk réew mi ñoom maaduwuñ ci alali réew mi réew mi yitteelu leen li leen yitteel rek mooy fab di dugal seen poche bëgguñoo bokk ak kenn alali réew mi bëgguñu ko Euh, ku ne ñu sedd la sa wàll sédd nag ñi xam ne ñoo ëpp solo ci réew mi muy ndaw ñi ndaw ñi ñoo fi wax bu yàggul ay ate ngi ni barça wala barsaq xam nga kay wax loolu li mu def ci xolam mooy xaru sax jaral na ko mu génn réew mi donc réew la moo xam ni nit yi ci seen bopp sax gëmatuñu réew mi lu tax gëmatuñ ko mooy ñii jiite ñi melokaan wi ñu yore ak ñàkk bëgg réew mi bi nekk ci ñoom ñàkk a yittewoo réew mi ñàkk aussi am projet de société xam nga réew da ngay am projet de société soo seetloo réew mi nga naa ah, réew mi développé naa ay télé ngi fi ay tabax a ngi fekk yooyu mais loolu du développé réew réew li koy développé mooy nga farlu ci defar nit ñi defar leen ci ci fànn yan ci bari xam-xam ba pare ami baax li wolof di am ay baax ay valeur lu ruus ci réew mi ci alal ñu séddoo ko te sédd ci ndaw ñi ndax ndaw ñi ñoo mën a fent meneenum réew ndax àdduna dafa metti dafa metti àdduna bii ñu dem dafa diggante metti ku defarul sa ay ndaw tabax leen ci anam yu rafet ñu jàng bari xam-xam man nga am pétrole man nga am jama man nga am or mais loolu taxul développement am mais lu ko waral xam nga li ko waral mooy xadar ji nekk ci jeunes yi jeunes yi fi mu ne di tubaab di wax désespoir moo leen habité gëmatuñ lu bari duñoo am énergie te énergie boobu kenn orienté wu ko feneen loolu ci ay làmb ak football ak pecc ak toi loolu rek lañ ko lañ ko def donc ci jataay yu mel noonu mën naa am seen xadar jooju ñu wane ko waaye su fekkoon ni am nañu yeneen yi te dugal nañ leen ci yeneen yoon amaana duñu egg foofu ok mais football am pecc ay bëre loolu lañ bëgg tënkee gone yi tënk seenu xel ba ñoom duñu xalaat leneen leneen lu ñuy xalaat mooy génn réew mi rek ndax gis nga gëstu bu yàggul bi amul ñetti ayu bis mu wane ni téeméeri gone yooyu jël ci ci réew mi ñu am fukki at ba ñaar fukki at ak juróom juróom-ñaar fukk ba li nekk ci seen xel mooy génn réew mi xam nga réew moomu développé ko dana jafe ndax su fekkee ni ñi nga xam ne ñoom nga yaakaar ñi ñoom ñoo mën a fent meneenum réew ci seen créativité ci seen man-man ñooñe ci seen bopp ñoom ay zombie lañu lu tubaab wax zombie maanaam nekkuñu fi maanaam du sànni li ko gone di wax yoo xam nga ni nekkoo ci dara. mais li tubaab di wax traumatisme ñooñu seen fit dem na euh, tiitaange dana leen jàpp ndax su fekkee ne dangaa jàkkaarloog loo xam ni sa sa dund. mënoon nga cee dee loola day des ci yow day sax ci yow ba mën na laa indil li tubaab di wax dépression maanaam nga dem ba gëlëm nga dem ba sa xol naqari ba àddina du la safati euh, loolu la mën a indi ci ñoom euh, dégg naa ni yóbbu nañ fay psychologue man de bokkuma ci pourtant man dafa naan ci fanweeri at yi lu ñu fiy def ci mbir moom sama loxo ngi ci. parce que bu ñu fàttali ko le hmm. bokkoon ma ci ñi taxaw rescapé yi. mais bii est-ce que est-ce que dugal. duñ la ci dugal ndax du ñuy politique. te defe naa ni dam duñ maa duñ maa soppul ndax li may wax te dëgg gi may wax kuy wax dëgg rek seen noon nga te man li may wax ñoom faalewuma leen man réew mi moo tax may wax xam naa lan mooy defar am réew. xam naa ko ndax yàlla def na réew mi moo ma jox lépp su ma amee xam-xam réew mi moo ma ko jox. ndax ba may jàng réew mi moo joxe xaalis ba pour ma am xam-xam bi man sama réew damay dund ci delloo ko njukkal duma jël ci moom dama koy jox loolu moo tax ma jóg mais nag su fekkee ni li may wax a tax kooku moom danañ yàgg ci di ma beddi ndax li may wax duma ci jóg li may wax mooy ñoom lañu weteñ ay mage mille lañu amuñu njariñu réew mi njariñu askan wi amuñu ko ndax am na loo xam ni mënees na koo dabu bala mo ñew ku ne xam nga ni nit ñi wax nañ ko stade bobu baaxul woon nga dajale fa lu mat ay junni gone soldar ci policiers yi leen wara ar ñu ci bari ñi ngi top ciogal gogu di dem di defi politique ciogal gi la leen mëna tudde di dem di defi politique di naxaatee ki fen ñoñu lañu top pour ar leen mais askan wi aaruñu leen dama ni la su fekkee da nga yitté saw yitté saw askan fo leen dajale xamni musa baman nafaam, na fa am da nga wara

psychologique. ci la ñu waroon dëkk bu yàgg ndax comme dañoo dëkkee musiba cellule bi kay dafa waroon dëkk cellule permanente maa ngi koy wax nee na amuñu programme santé mentale amuñu ko ci réew mi dañu këtt ñu jonn rek ñu dem jaale joxe na fa un million joxe na fa deux million madame kii xawma ma lan ak lan loo xam ni da nga leen di jéppi ndax defe na ni xaalis ay lijjanti lépp balaa xaalis ñëw musiba mi xam ni moo mooy ñëw yow mën nga koo dabbu musiba bi bii ñëw mën nga koo dabbu cellule bobu xamni li li lii euh, moy fu jeeyé ñëwee ñu fexé ba metit wa baña sax ci di ba dess ci ñom ndax da leen di yàqal lu bale day gàllankoor lu bari ci ñom mais nga traumatisme lañuy am est-ce que traumatisme bobu dina nek lo xamni day gaaw dañ ci ñoom. bala dañ nag xam nga traumatisme bala moo dañ euh, dafa am ay melokaan man na am ci jataay bi sax do ko gis. waaye mu sax ci yow ba fés ci feek fukki at wala fukki at ak juróom ca ca kanam donc li ngay def da nga koy mën a natt da nga koy mën a natt li tubaab di wax débriefing émotionnel moom ngay njëkk a def natt ni kii est-ce que am na lu sax lu des ci moom ba pare nag nga ànd ak moom di ko topp di ko topp jëm ay at su watuwul ndax du mën naa bañ a feeñ ci ci jataay bi traumatisme day sax ci yow mën a fés ci jeneen jamono donc ña koy def dañ koo war a man ndax expertise la du da ngay jóg rek jël nit rek ni xaw ma psychologue te léegi psychologue yi moom dafa bari moo xew xam nga ko ah ku jóg rek ñu ni psychologue la moom moo moo remplacé sorcier ak autre mais su fekkee ni ñooñu mësuñu koo def mësuñu koo def jàng nañu sax amaana mais mësuñu koo def kenn jàng kenn jànguluñu kenn tàggatu leen ci su watuwul mën naa am lañ cey bëgg duñ ko am donc dama yaakaar ni ñu yaatal géew bi ndax réew mi ñun ñun ñëpp ñoo ko bokk ok te askan wi moo tax ñu jóg pour askan wi du leneen moo ñu yëkkati du affaire xaalis du leneen xaalis ku ko bëgg da ngay mel ni ñoom. campagne gis nañ ci violence violence bu bëri sax. waa du ñàkk xam nga ñuy jongante ñoom ñëpp nee naa la wetañ lañu loolu rek lañ mën a def ñu ci bari soo leen génnee ci politique bi. machine buy tojee neen sax mënuñu ko defar mënuñoo lijjanti sax seen bopp loolu rek ay seen liggéey ñooñu nag danañ ànd ak xadar ndax du du woy lan laa xalaat ci réew mi fan la réew mi mën a jëm tubaab di wax projet politique ñoom amuñu ko lii seen projet politique nan la ñuy fexe ba ca ëtt ba la ñu nekk fa di jot la ñuy jot di dox di fen loolu rek la donc xadar ji ñuy àndal ku ne xam nga ko man du tax ma xeex man politique jarul ma xeex ah dana dana ko mos a jar nag ndax li ñu nekk ci réew mi am ñoo xam jànguñu xamuñu dara amuñu métier bëgg léegi ni ni ñoom ñoo war a yore réew mi ilaa yow mi diin di ñu dëkkal ci jéyi ak musiba mu mel nii di ñu gént loolu loo xam ne mënta am ci jamono joo xam ni lu ñu gën a avancé rek mu gën a metti ndax jamono ji ku ne dégg na ko Trump nee na Amérique rek lay lijjanti nga bëgg ko nga bañ ko moom nee na réewam lay lijjanti ñun lan la lijjanti suñu réew ñun suñu réew dafa mel ni sax

ñoom xam nga ñan lañuy ci fan lañuy ñuy sukkandiku ci nit ñi rek jël xadaru jeune yi xadaru jeune yi moom la jël manipuler ko pour jeune yi xeex seen jarbaat nekku fa seen yaay nekku fa seen <laughs> jabar nekku fa ñeneen ñi lañu même bu weesoo <laughs> ñoom hmm. waaw même bu weesoo ñoom gis nañ ni def dañoo am dañuy ànd ak ay nervi jël ay jeune pour ñooñ di def violence yor ay armes yor yor yor ay yoo xam ne mën na gaañ nit mën na rey nit des choses tranchantes et autres loolu lu waral loolu lu waral loolu nee naa la ñoom

ba jëmele ko foofu loolu rek la ndax ñoom amuñu idée ñu ci ëpp amuñu benn idée benn idée rek la ñu am mooy lu dugg ci seen poche dem fa la ñu jox leen xaalis jox leen ay 4 4 ñuy wër loolu rek su dul loolu ñu torox. Hmm. naka neen war a mën a def pour éviter comportement yooyu. comportement yooyu il faut que ñu fent meneenum réew dafa jot ñu fent meneenum réew dafa doy ñu toppoo way gis nga ñoon bés bu ne l'éternel retour ñuy wër rek dafa fe dafa jot ñu fent meneenum réew. seet ñi gën ci ñun ñi ci ëpp xam-xam xam-xam moo yore réew ñi ci ëpp yërmande ci réew mi te am na fi ñu seppi leen ñu seppi leen ñu man ñooñu ñoo mën a déedéet ñoo xam nga politicien ñii fi nekk moom tax nañ kenn bëggutu dégg sax politique ñii fi nekk tax na kenn bëggutu dégg politique xam nga politique mooy lan politique day fekk yow nga jiital li xam ni mooy njariñu askan wi yow doo jiital sa poche ndax ku doonul ci sa baay dërëm ñu lay jiiñ milliard wala nga ne am nga ñaar wala ñetti milliards su doon réew moo xam ne réew mu jaar yoon la yow kaso ngay dee te ñoom koo ci gis mu ni am na ay milliards kii jiiñ nañ ko milliard moom am na ñetti milliards ci fukki at mu am ñetti milliards fan la ko jëlee donc est-ce que mënuñu dëkk ci loolu loo tax may wax ndaw ñi yéen fi ngeen war a dem xeex ak ñoom du ci seen biir ay wi mi ngi jóge ci ñii ñii xam n ñoo leen xañ lii ruus ci réew mi war a waroo waroon a yegg ci yéen ba ngeen mën a jàng ci anam yu rafet wala ngeen war a faju ci anam yu rafet wala ngeen màgg ci anam yu rafet ba nekk mukallaf ñooñu ñooy seeni noonu ñooñu waru leen mën a mu waru leen mën a ànd ak ñoom ñu leen di dugal ci jëye ndax yéen seeni seeni ngànnaay ci ñooñu ngeen ko war a wa wa war a jóor. bu ñu ñu fàttalikoo 17 ans en arrière yaa ngi fi yaa ngi fi prôné benn ndëpp.

Euh, nga gis kuréel yi kuréel yi xam ni moom samp su doon sax famille su doon sax religion yi yooyu yëpp dafa nekk en crise loolu tax ma ni nañu seet nan la ñuy fexe ba xam lan mooy suñuy taar ñu nangu ko ay taar taaru réew mi te taar yooyu maanaam feebar boobu fan la jóge mais est-ce que ndep bi nga doon prôné c'est pas d'actualité et est-ce que tamit ndep bi mën na régler situation yi. dana ko régler ndax xam nga so xamul fo jëm xamulo li nga nek la na ko indi yow tu n'es pas honnête avec toi-même ku mënta seetu du gisub taram ku mënta seetu du gisub taram du gis du gis aussi ab ñaawaayam da ngay mën a seet sa bopp te soy seet sa bop nga nga nga nga seet ko ci. ci ngor nga xam ni réew mii du réew mu baax. ndëpp bi nu muy demee kon. ni muy demee xam nga benn rek lay doon soo dajalee nit ñi kuréel yi nga dajale jeunes yi ndax jeunes yi kenn xamu leen xam nga ñoom xamuñu jeunes yi duñ leen di gis rek mobiliser rek comme du bétail électoral mais xamuñu leen ki xam ni moo dëkk moo jënd moo euh, moo juddoo ndakaaru ak nekk guy mbëtt wala bayti xaxaam mais seen yitte bokkul mais da leen di xam. jigéen ñi da ngeen di xam da ngay xam jigéen ñi lan mooy seen bëgg-bëgg ndaw ñi lan mooy seen bëgg-bëgg école yi nga xam ni ban école nga bëgg a defar ban école ndax école boo xam ni fukki at ak juróom nga ni ci garab lañ dëkk xam nga réew mu yàq réew moom yàqu na. ndëkk bi daal mooy nan attentif. Mm, mm, ñu mm. attentif ci mais mooy ñu toog euh, saytu mbir yi te ñi koy saytu nag du ñoom ndax ñoom mënutoo saytu dara ndax xam nga dafa am dof bu kannas ñoom du ñoo kannas waaye ñun ñi xam ni ñun du ñu doon ñoo xam ne du ñu xaw a tëlbati mën na ñoo am yaakaar ni ñun mën nañoo faj waaye ñi kanas moom faj leen day jafe ñooñu bokkul. ñu koy saytu ndëpp bu amee comme du ñi ci des ñi xam ni ñoom du ñoo tëlbati wala du daanu ci saret ñooñu au moins dese nañu tuuti xel mais ki kanas. ki xam ne moom dafa dof ndax ak caay-caayam ak mbonam ak ñàkk ngoram kooku moom duñ koy génne ci suñu réew na na na leen réew mi ku la ni yor na milliard rek nee ko kaay yow foo ko jële fan nga ko jële loo liggéey ba egg ci foofu lan nga liggéey danga nga koo doon ci sa baay ku ne xam ne fii kenn doon ci baayam lu toll noonu dangay siif rek di jël loo moomul mais kooku nan nga koy boole ci ndëpp bi ndax kooku ngoram amatul ngor ki xam ne li ñëpp bokk da koo siif di ko jël di ko dundee di ko jënd ay oto ki tabaxi kër wala muy dem di ko yóbbu ci ci ci bitim réew mais kooko wax mënta bokk ci ñun dees koy teg fële seet ñi xam ni ñoo ci tane ci askan wi am xel dese na leen tuuti ak ngor ñooña ñu toog ñu waxtaan mais du ñoo doyal ci ñii il faut que ñu seet ñeneen yeneen i nit xaw ma yéen ndaw ñi xam ngeen ko déet mais doy na dafa doy ndax suñu continuer xamuñu fuñu jëm amna jey yu bari xew ci rew yi rew yu mak ndax jéye ji bari na fi violence ya ngi fi mais amna rew yo xamni violence bi amna fu mu toll fo xamni ne kenn kenn xamu ko nañ ci egg ndax ñi ñooñu ci yóbbu ndax ñi fu seen njariñ quand leurs intérêts sont menacés ils sont prêts à tout donc avant qu'il n'ait assez de force pour ñu pour indi ñu ci jey yu mak nañ leen ber nañ leen ber xalaataat suñu réew mi fent leneen sukkandiku ci ndaw ñi ndax ndaw ñi alal ju doy waar la réew su fekkee ni am na ay ndaw alal ju bari la mais su fekkee ni sàggane na sàggane na ndaw ñooñu nag musiba la